mbër Modou Lo yal na ko yàlla may ndam. <laughs> ah loolu de yaa ah, du ma ko nangu. doo ko nangu. déedéet. yow kuy am koy ñaanal ama ah? ba dëkk. <laughs> loolu sama combat la eh, la de. <laughs> ku leen invité bañ leen. Eh, combat boobu kay combat jiine eh, la. de. Ah. nga def attention ah. ah de voyage rek voyage. yow moom di nga voyage. bay bay combat boobu. <laughs> yow di ko bayaat sisan Modou yow nekk ah, il ah. yow bay combat bi de. combat bi combat la de. Eh, eh, roi bi roi bi hmm. Hmm. cinq ans parce que lay mi dem dem Pikine. ah non cinq ans loolu loolu ñun pare. Ah, wax na ma Ama Baldé mais en tout wax nangu naa ko. Ama Baldé. moo gën a jékki Modou hmm. moo gën a jékki Modou moo gën a pare mystiquement. li ma la wax léegi bàyyi laa bëgg a dégg. prince bi ñaanal Ama nee na Ama moo gën a jekku yow bi ñaanal Modou Lo nga ni moo gën Modou Lo moo. Ama Baldé moo jekk Modou Lo. waaw mais Modou Lo Ama Baldé. Hmm. ñu ne hmm. ah, comme man voyagé na euro boobu. <laughs> nee <laughs> man nekkuma ci réew bi. Ah. Ah, comme ba boobu dina métti de. kon kon ñu mas ñu. ñu mas moom lu mu di xew si combat bi daanu raaj parce lay demaat. ak lu si mënti xew. combat jinne la de. Ah. est es que yoo xam nga. <laughs> est-ce xam nga combat Ama Baldé est-ce que yoo xam nga combat Ama Baldé est-ce ah. que yoo jinne la. ñaata fois combat bi takkaw di di dee. Mm-hmm. la 25 décembre combat bi war a nekk. Mm-hmm. Eh, lu may laaj mooy est-ce que dinaa nekk jour boobu. incha allah ñu ngi ñaan yàlla mu nekk. est que de parce comme ba boobu gis naa lamb boobu dafa bëri xeex. ci suuf pression dama lay yóbbu ne soo ko daan. ah, ah. <laughs> nee na da koy ba mu doog laa daan. sa samp jeex na. ah <laughs> ah, ah bisimilah ñu for jërëjëf mbokk yi. ndeysaan kon kon kon sëñ Mor dafa mel ni ni mu wax combat bi est-ce que dina am 2021. non man xam naa ndax yaa ngi naan ko duma la yóbbu ba 2022 te junj doy na borom xel. si ay sarax na. boobu est-ce que dina am. dina am décembre. ah dégg nga kii mu ngi laa 2022. yow na man ku ma sa wax loolu. Uh-huh. mais su combat bi am tay tay tey. Ama Baldé dina am victoire. bu amoon parce que moom moo gën a jege. Hmm. ci mystiquement am ci doole. am na ñu bëri bi woon na ma ci eh, waa eh, club kii. ama euh, modulo Lo hmm. lan la ñu war a def man di loolu Modou Lo loolu consommé hmm. mais du ma wakk ci lamb boo xamante jégeegu parce que lu lu lakkase ci ginnaaw lamb dafa bëri hmm. dëgg la beneen mbër am fukk fukk sëriñ gis naa sëriñ waroo gaaw a wax ci lamb sinon dina nga dem var var bu métti métti métti loolu moo takk lamb boo xamante bokkuma ci du ma wax mais Ama Baldé xam nga dafa am sampam dafa am limite. Mhm. samp Ama app bi mu jeex. app bi kañ jeex. 2022 day day suuf. kon <laughs> comme combat bi il faut ñu il faut ñu taxaw il faut ñu ba 2021. waaw waaw dégg nga <laughs>